marhaban ñaari recours yu coalition Yewwi Askan Wi déposé ni ki démb ci conseil constitutionnel moom la mboolem yéen i kaay xëyee ni ki tey jilee l'observateur nañu ñoom waa Yewwi bokk na ci li ñuy exiger moo di ñu daal di valider seen liste ba fii ci Ndakaaru rax si dolli itam ñu daal di rejeter liste coalition Bokk Yaakaar ab kàngam mi xam xam a màcc lool ci wàllum élection Babacar Fall di spécialiste électoral daal xam xamle ci biir yéen i kaay l'observateur ne recours yu opposition bi déposé ci conseil constitutionnel mën nañoo bañ a indi bu gàllankoor ci doxalinu élection yi jëlee jamono yéene kaayu enquête moom mu ngi xam le ni Ousmane Sonko daa dinay dogu lool ngir seen liste mën a jàll fii ci Ndakaaru waral yéene kaay bi xaatim ci xëtam gu njëkk ne Sonko joue son va-tout daa woote ab dajalo di rassemblement ci ay fan yu ñuy dëgmal ngir wane seen naqar ak seen ñàkk ànd ci seen liste département bu Ndakaaru mu ñuy daal di rejeté ya ñaari coalition yi di Yewwi Askan Wi mi far ci kujje gi ak Benno Bokk Yaakaar mi far ci mouvance présidentielle bi mayante wuñu dara fu mu toll la ñu ne bu ñu sukkandikoo ci yéene kaayu enquête ndaxte ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ñu bëgg ci seen xeex bi moo di ñu fexe ba liste Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru ñu daal koy génnee ci élection législative yi ñuy dégmal ci jojule jamono itam Ousmane Sonko yi àndandoom taxawu temb engagé ab combat bi nga xamante ne lenn rek lañ ci jublu moo di gàntal ñi di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom itam ñu bokk ci élection législative yi ñuy dégmal ndax parrainage bi ëpp mi ñu jàpp ne moom la ñu dugal ak nu mu mënti demee daal Walfadjri quotidien daat ko a ñu sukkandikoo ci suñu naataango yu Walfadjri yi daal dinay waajal boppam ak ay militant am jëmale ko daal di préparer jamono ji la tembe ab bataaxal ngir fexe ba dellu soit ñi nga ne dañoo mer ngir ñu bañ a amal li ñu duppee vote sanction yéene kaay Le Quotidien dëggal xibaar bi nañ jiital Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall ci bile bataaxal bi mu fas yéene jëbbal ay militant am lenn rek la ci bëgg moo di ñu bañ a découragé te itam dem ba jeex takk ci nu ñu mën a amee ndam ci législative yi ci wàllum yoon ak yoon mboolem yéene kaay daar nañu itam di xamle ni cour d'appel bu ndakaaru daal dinay toxalaat délibéré procès Barthélemy Dias Ndiaga ba ci ñaar fukki fan ak benn ci yorum sattumbar témoin quotidien sampub laaj ne ndaxam attekat ba di juge bi dogal bu nu mel da koo jël ngir dal mën a am ci réew mi ci ndigalu président Macky ak nu mu mënti demee daal avocat mi la yol Barthélemy Dias di maître Ousseynou Fall mu nga xam ci biir yéene kaay vox tëj juróomi atu kaso jafe-jafe Barthélemy Diaz yi jeexanguñu dafay wëyandi yéeni kaa Sud Quotidien moo ko xaatim ci xëtam gu njëkk ak nu mu manti demee daal njiital Pastef Ousmane Sonko mu ngay mel ni kuy indi tontu di xamle ni Barthélemy Diaz mooy wëy di jiite Dakar ci juróomi at yi ñuy dëgmal la jàngeen jëf